jërëjëf mbokk yi bu ngeen gisee secteur bi ñu nekk ngeen xam ne ñu ngi ci programme bu mag bi nga xamante ne bii moom la ñu nekkoon fan yëpp doon ko ubbi muy cabinet nii Darayni cabinet Nourou Darayni fi la lépp di xewee tubarkal la waaye nag yàlla dogal ni ñuy liggéey ci cabinet bi yëpp mu doon ñoo xamante ne bii ñun ñoom lañ ñoo xamante ne bii ay nit lañ ñoo xamante ni ñu gëstu wàllum garab lañ ba xam ko saytu ko dem ci àll bi gëstu ko dem daggal ko seen bopp ci loxo tabarkàlla yi ci war a dem yëpp ci ay ay alquran ak ay kayfiyaat yoo xamante dañ ko ca war a def pour composé ko mu mën a faj ñu def ko ci ñu jàkkaarloo ci kenn koo xamante ni bii nag mën na maa wax ni bu taxawee ci secteur bi lu mu ci wax rek tabarkàlla ñu mën ko bind comme téere muy Serigne Cheikh Pape Diouf boroom gënn gi mbokk yi ngeen xam ko ci xam-xam beeg dal geeg yar bi ak teggin yi tabarkàlla alaaj Pape mu mel ni nag yaa ngi ci cabinet Nourou Daarayni ci fi nga xamante ne bii fi la garab yu baax yi di génne axusu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wafir lana wa aafina bi aafiya takunu fii daarayni xayra aafiya euh, Cheikh Pape mi ngi leen nuyu bu baax te di la tey ziare mboolem waa télévision bi yëpp buñ jëlee nuyoo bi teg ko sa loxo ak Serigne Modou Lo xam ne moo fiite ci wàllum technique bi rek ñu yóbbaale ñëpp. Mm-hmm. mbokk yi mu ngi noonu ngeen dégg ko El Hadj Pape Diouf borom gën a gis sëñ Pape te de daa mel ni la nga ñu doon wax doon ñu ko dikk naan ñu maay faj nangam maay def nangam tey dangaa ñëw ba fi nga koy faje daal taxaw foofu nga ñu war a waxee garab yi kenn ku ci nekk li muy def ak Pape noo koy defee. waa kay jërëjëf seex Pape wax naa ay yoon ne nit ki lépp lu muy liggéey lu ne ci àdduna war na ci waslu àq mm-hmm. waslu àq gi nag mooy. Mm-hmm. liggéey bi nga opté di ko def lépp lum laaj ci àdduna nga dox jëm ci loolu ak ci lu ci mën a doon nga bañ cee tayal ci dara ci lépp loo xam ne nii jëm na ci sa wàllu liggéey wax naa ne nag asraar bi ñuy def ndax damay faral di wax ne baatub lasraar euh, tekkiwut na rek ay kayit yu ñuy bind wala nangam ak nangam déedéet baatub lasraar secret la baatub lasraar ci arab mooy secret. waaw waaw mooy sur waaw. léegi mooy secret léegi nag. secret lu ne mën na cee bokk. dama dégg benn boroom xam-xam barki démb mu wax. ci benn sit bu ñuy wax A21. ca Ndakaaru ne. bari na sëriñ soo xam ne. ñu ngi woote woon ne mën nañoo faj. mën nañoo ñaan. te bu ñëwoon fii ci sama daara ji. Euh, su ma leen tariloo saabu ba naa si mënuñ ko tari. Ah. loolu nag néew xam-xam mënu ko romb. Ah. nekkul ne. Euh, ñàkk a jàng alxuraan day tegtal ne ki ko jàngul amul xam-xam xam nga bu fekkee man jàng naa ko man ba peg ko li ma ci xam lépp ma xam ko waaye loolu ay erreur erreur de communication la alxuraan ñàkk ko jàng nekkul ne day tegtal nit ki bu jàngul alxuraan du am xam-xam. xam-xam sax lañ koy man jàng naa alxuraan ba pek ko ba wàcc kaamil yaa ngi dégg ba lépp lu ma ci bëgg a wax su ma su ma su ma teewloo rek damay daal di xam loolu fa mu nekk dem waxi ko. te teewul dem naa gëstu gëstu ci xam-xam ci ñoo xam ne maanaam xamuñ ak liif ci alxuraan xamuñ ci ak liif nga xam ne tey jii buñ soxla woon seen tur ci alxuraan da nga leen koy bindal. xanaa yow miy jàng téere yi yaa ub téere bi dem fekk ñooña. dem fekk ñooña. day tegtale li sëñ Tuubaa waxoon mag ma mm. ne ko ana noo def mm. ku nar a jëm sawara mm. nga dëpp ko yóbbu ko àjjana mu wuti téere yi sëñ Tuubaa jóg ga jóg jóg njëkkante moom téere yi nekko loolu niwul ci ay kàggu looy jëflante ak sa borom lay nekk kon dafa am loo xam ne nii looy jëflante rek yàlla lay nekk am na ci loo xam ne tamit looy gëstu la. waaw bu ñu ko tegee foofu sax xam naa dañuy waxtaan ci xam-xam sëriñ bi am na fu mu wax enfistuma siina anit defaatiri fala takun an am na xam-xam yoo xam ne wat na ko yoo xam ne néewul ci feggu boo ko doon seet doo ko néewul ci ne ñun ñi nga xam ne ñooy seexul lasraar yi dëgg la di wax ay communication yu mën a convaincre nit ñi dëgg la waaye li ci am solo nag souvent buñ toogee nañuy waxtaan ci xam-xam loo xam ne nii borom xam-xam yi bu ñu ko déggee dañuy xam ne kii li muy wax maîtrise na ko te it am na ci xam-xam waaye nekkul ne rek chaque jour saa bu ñu introsé rek da nekk di wax loo xam ne nii ci ci noo def ba nit ñi ñëw wala nangam déedéet parfois nag da ngay taxawalu di wax ci loo xam ne nii xam-xam lay nekk boo xam ne nii képp ku jàngi xam-xam wala képp ko koo xam ne borom bopp la wala borom xel su déggee nga wax automatiquement rek day xam ne yow mii di wax boroom xam-xam nga. loolu daf ci am solo trop tubaarkàlla mbokk yi nañu bañ a tënk xam ci téere bi képp képp alxuraan ba wut dara waaye daa am yoo xamante ni bii détails ya mu nga feneen foofu la ko alxuraan isaara sëñ Tuubaa dafa wax ni maanaam alxilmu laa bi kasrati riwaaya bal xilmu nuurun ma addiraaya mën na ñëwee nu ne donc alaaji Pape bu fekkee dañuy waxtaan ci xam-xam rek ci côté téere beeg yooyu moom néew na nit ku la ci mën a wax loo jàngut ndax xam nañ si aliwu fi mu toll moo tax bi nga engagé wu nga ni wàllum pàcc ak yu demee mu mel ne waxoon nga garabu néew kattan façon bi nga koy fajee gars yi dañ doon laam-laame tey nag ñëw ci preuve yi dama ne néew kattan boo ko defee dangay ñëw fii seen cabinet Nourou Darayni nee naa bu la neexee boo ñëw da nga àndaale ak sa soxna bu fekkee am ko ko xam nga loolu leer na. garab yi daar daa waa garab yi maanaam daar daar la am nañ fi ay bërëb yoo xam ne bu fekkee sa soxna la boo ñëwee bu la neexee bala ngaa fay a xaalis dañ lay dox nga essayé ko ah, waaw lu ci mel ni ki xam naa caméraman da koy jël ñu ñu ñu génn ko tey sa tey sa dëkk nga bu neexee tey alaaj Pape fu la neex demal boo ñëwee boo ñëwee ñu ñu wax ci waaw jëral yëpp mbokk yi mu ngi noonu tey wax naa leen ni leen xam-xam moo nar a feeñ ndax li tax mooy dañoo ñëw ci cabinet bu mag bi muy kabine cabinet Nourou Darayni tabarkàlla Nourou Darayni nag dafa yaatu ndax li tax mooy euh, tabarkàlla boo fi ñëwee ci kër gi koo fekk mën naa fa sa aajo bërëb bi ñu fi liggéey ñëpp mën a faj sa aaj waaye moom mi ne def cee doon koo xamante ni bii tabaarkaala bi ñuy dagg garab yi mu ngi taxaw bi ñu koy wal mu ngi taxaw bi ñu koy defar tabaarkaala yeneen ak yeneen mu ngi taxaw alaaj pap xam naa baal ma téyel la sax euh, moo du man a maa jaar dëgg la euh, waa kay ma téyel la parce que yow moom foog nga détailleel ma benn par benn one by one comme ni ko anglais yi di waxee voilà baal ma jox la butéel bi ba noppi parce que kii euh, yi nee nañ <laughs> dëgg-dëgg Ah, man nag am na bu ma dégg démb. xaw ma waa ji waa ji moo xamut xaw man maa xamut waaye nee na ma maanaam da nga koy diw. waaw waaye nee nañ boo ko. <laughs> boobu de yàlla nañ ci yàlla musal ciy diw <laughs> ci xam <laughs> am na ko ko ci ñuy diw léegi bi mooy. dañuy njëkk ci butéel bii nii. waaw. butéel nii. Ah. lépp loo loo xam ne dafa jëm ci wàllu ndoxu siti. Ah. neeraa ndoxu siti nag. maanaam jëmmi butéel bi rek doy na sëkk ma def ci émission ba ba ba euh, suba ba ngoon. mate woon na ko mate benn butéel bi. parce que yaa ngi may wax que man nga demee ndoxum siti mooy bokk na ci ba ci jigéen am karaw ba jàpp nit ba mu dem ba jàpp ne dañ koo liggéey. mu dem ba jàpp ne dañ di dem bay bay dem di faju faju maanaam wàllum kuñ liggéey te fekk na yow liggéey ñu la ndoxum siti moo la jàpp. wallahi la sim ndoxum siti dina dem ba hmm. te nit ki am doom ndoxam siti day dem ba nit ki daf ko daf koy téye parce que day yàq manium ba nga xam ne nii tey jii tey jii tey euh, bu dee sëy dina dina dina am ndox mais ndox mi du baax loolu ndoxu siti moom moo da koy lakk da koy togg ba ndox mi dootul baax la mu war a yóbbu du ko yóbbu ndoxam siti tamit dina dem ba nga xam ne day taayaloo nit ki est-ce que xam ne ndoxam siti dina dem ba bu bu ko nit ki fajut mën naa dem ba yóbbu ko sax sawara xam nga sawara barki xaadim rasul xam lu tax suñu borom dafa wax ne ah. yàlla dafa wax ne hmm. jullit bi ah. kiiraayam ak ak li nga xam ne ni moom la ñuy mooy tax ñu validé ko mooy mooy jullit bi dafa dafa war di julli te ndox mi dafa lay jàpp ba da ngay tayal ba waxtu julli door ko julli yow saa su waxtu jotee yow boo bëggee julli da ngay tayal tayal a jóg te nit ki nag bu fekkee ne li ko yàlla indee ci àdduna maanaam defu ko day dem ba mën na ko jural musiba moo tax ma ne ndox naa dem ba sax jural nit ki faatu suñu boom yóbbu ko war ndax dootul julli day lépp loo xam ne nii lu mu daan def ay waajib lay jëman digganteem ak yàlla day dem ba lépp dooru ko defati kon ndox si liñ ci mën a wax bari na comme nee naa émission bi guddul te bari na émission yi ñu war a def kon dañuy tënk foofu noonu ci garab gi nga xam mooy garab ndox sit waaye li daal doy na tey marchandise waaw <laughs> alaaj Pape kii kii mooy kan pommade bi ngay gis nii ah. jëm pommade bi nii pommade bi euh, nee naa hmm. képp koo xam ne yàlla dafa dogal hmm. nga néew kàttan nga xam ne da néew kàttan ci wàllu sëy am na ñoo xam ne dañuy néew kàttan ba. bun bun bu bu maanaam bu seen seen seen awra jógee. day gaaw a daanu. dañuy gaaw a daanu. loolu nag néew kàttan néew kàttan nag hmm. bokkul ak ki nga xam ne dafa am feebar feebaru maanaam kàttan. feebaru kàttan ak néew kàttan bokkul. Hmm. bu fekkee ki ne dafa néew kàttan bii lay jël pomade yi ñaar la bokkuñ bii mooy bu zone bi ki nga xam ne dafa néew kàttan hmm. bii lay jël bii boo ko jëlee bu yàlla dogalee nga dem nga dem ba vingt 22 ser jot ci nga koy diw ci sa awra. 22h ci nga ko ciy diw. bii jël. waaw bii waaw nga diw 22h nga ko ciy diw boo ko ci diwee. soo demee ba ba 0h mooy minuit. Ah. nga raxas ko ba set. Ah. maanaam tey tey ji bu fekkee ne boo daan sëy ci 2 minutes ngay daanu mën na laa téye ba 30 minutes bii. Ah. waaw 30 minutes waaw. mën na laa téye ba 30 minutes bu fekkee pommade bu sone bii nii. bu fekkee jëmmi pommade bii. bu bu noir bii nii. waaw bii mooy traité ki nga xam ne nii. maanaam maanaam dafa am feebaru sexuel nga xam ne nga xam ne tey jii kooku bala moo jógal day xaw a yàgg nga xam ne mën naa nekk di di moo mook soxnaam lu yàgg-yàgg waaw ci ci lal lu yàgg te bala moo jógal day yàgg su boobaa kooku bii lay jël bii nag niñ koy niñ koy utiliser mooy soo xëyee nga koy diw boo ko diwee par trois heures de temps nga koy raxas maanaam chaque jour boo ko diwee ba mu am trois heures de temps ci nga koy raxas traitement bi lépp sept jours lay nekk juróom-ñaari fan après day wër pelek dootu la daal war. maanaam day wër pelek dootu la daal bu fekkee ne bii nii traitement bi lépp sept jours lay doon jëm pommade bi pommade bu si nekk deux jours nga koy diw nga xam kii kon traitement boo ñëwee dañuy calculer sept jours yi ñaata la ñu xool ñu xool ñu xool li ñu la koy joxe ci ay pommade incha allah nga yóbbu ci kàttan euh, beneen boo xam bii moom daa mel ni sunguf la xaw waaw bu dee bii sungufu kattan la bu dee bii bii doo ci maanaam doo ci def dara da ngay da ngay wut ndox ndox ngay wut. Euh, boo wutee ndox kuddu xale yi moom ngay jël mëq jël ndox mi naan mu jàll su fekkee bii moom tamit daf lay daf lay daf lay daf lay dëgëral say wàll xinjaan ba pare sa ndox tamit daf koy formel ba nga xam ne nii bu yàlla dogalee nga sëy maanaam bu fekkoon ne dangaa ngaa nekk koo xam ne nii gaawoo gaawoo gaawoo am doom comme jigéen ñi xam ne nii dañuy dañuy toog lu yàgg duñu am doom tey bu ñu jëlee bii maanaam seen borom kër bu jëlee bii yaakaar naa bu ko bu ko utilisé ni ñu ko waxee jël traitement bi du jël ay weer incha allah te suñu borom mayu ko mayu ko mayu ko doom incha allah cabinet Nourou Darayni mbokki damay wax ne lépp ngi fi ndaxte bërëb la boo xamante ne bii garab yi fi nekk dañ ko saytu ji woon moo tax ubbi gi yeex dañ ko saytu woon saytu woon ci <laughs> ci bërëb yu fasantikoo yoo xamante ne bii yàlla dogal na it ma leeral leen ci beneen affaire boo xamante ne bii tabaarkal lii boo demoon ci médecine traditionnelle tey médecine moderne tey muy wàllum docteur yi ñoom ci boppam jël nañ ci nit ñoo xamante bi ñoo ñëw fi ba saytu garab yi ba gën a accordé joxe maanaam ah, maanaam nu ñu attestation ni que garab yi léegi maanaam nit mënees na koo jël parce que yuñ saytu la ba xam ni yii yu normal la bokkut ak garab yi nga xam dañ koy jënd ci marché ba ñëw segg rek daal di jox nogay ni ko naanal. loolu dinaa ci leeral ba pare bu dee bii tamit meew lay àndal. waaw bii meew lay àndal da ngay da ngay da ngay wut kaasu meew boo xam ne kaasu huit nekk nga tibb génn ko def ci moom tamit ci kàttanu suñu borom ci wàllu ngóor lay dox ci wàllu kàttan lay dox ba pare ba pare moom tamit dalay traité waale ba nga xam ne nii dalay dalay indil ak cawarte ci gàttal daal fii mboolem garab yi fi nekk yëpp garab gu ci nekk dafa am lu muy faj garab gu ci nekk daa loo xam ne nii moom lay faj euh, yaakaar naa li fi nekk ay xeeti garab notice si mën nañoo nuroo waaye li fi nekk ay xeeti garab bu ñu ko calculé lépp lépp lépp lépp war naa ma téeméeri garab yoo xam ne ni maanaam benn bu si nekk bokkut ak moroomam ci li muy faj euh, nit ki daal képp koo xam ne ne am nga feebar boo xam ne jaaxal na la yaa ngi dégg loo xam ne ni ci feebaru cosaan la soo ñëwee dañ am na ñoo xam ne dañ koy xool ñu ngi ci biir loolu rek moom mooy seen liggéey buñ ko xoolee ba pare bindal la ordonnance bi ne la boo demee garab sax nga war a jël su ko defee ci cabinet cabinet bi ñoom da ngay indaale ordonnance bi ñu ne la garab gi nga jël ak gi ak gi bu fekkee traitement la ñu dañ lay jox traitement ne la jour tàng sàngam jël fekkee ne nit nga ko xam ne nii saytu nañ la xam ne ni boo jëlee benn bi tamit sa sa mbir yëpp wér ñu jox la benn bi bi ci des mooy li nga wax dafa am solo am nga ilmu sajar dafa am muy xam-xamu garab Cheikh Pape bari na ñu faatu dee te xam nga lu leen rey mooy sunguf fi ñu naan mooy sungu fi ñuy naan garab dafa am ñett reen la mm-hmm. xas la ak xob waaw léegi nag bu fekkee ne jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi reen mm-hmm. reen kenn du ko naan maanaam kenn kenn du ko wal sunguf reen dañ koy xooj ah. bu dee xas dañ koy baxal bu dee xob mën nañ koo naan doom bi mën nañ ko naan léegi nag loolu il faut que nit ki dem ca marché bi dafa jënd ay garab il faut que mu ràññee la yooyu souvent nga dem ñu jaay la sunguf soo xam ne nii reen la loolu boo ko naanee du wér ci àdduna souvent nga dem ñu ñu ñu xas ñu xas am xas dem wal ko jox la ko nga naan ko du rees ci àdduna ci àdduna du rees xob day rees doom day rees léegi nag loolu nag kii jaay garab war naa dem gëstu ji xam-xam boobu noonu ba nga xam ne day xàmme yi ñuy xooj ak yi ñuy baxal ak yi ñu war a ñu war ñu war naan ko yooyu tamit yu ci am solo la jar a ràññeele nañ ko xam da ngay dem marché bi ñu jaaree sunguf ne la sunguf si nangam la rek nga dem xooyal ko naan loolu doon sa biir bi lay des mën naa dem ba jural feer boo xam ne na laa parce que du res quoi day wàcc rek am fu mu tàkk non du moo ko tibb suuf lekk ko ñooyam du res waaw bu fekkee xob yi nag moom day rees su fekkee doom bi soo ko walee day rees kon nag yooyu tamit nañ koy nañ koy ràññale di ko xam ki nga xam ne day yëngu si wàllum garab daal war na cee jàng am ci xam-xam bu dee cabinet nooru daara yi nag ñoom boo fi ñëwee yemuñ ci di yemuñ ci yemuñ ci di jaay dañu fi am spécial ñoo xam ne boo ñëwee dañ lay jàngal xam-xamu xiimu sajara xam-xamu garab dañ la koy jàngal fii ci cabinet bi boo demee ci étage bi ci kaw am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy liggéey da ngay dem ñu la ko nee la garab yi nii fi mu toll nii dañoo war ñi nga xam ne ñi ngi jaay garab yëpp dañoo war leen kenn kar par kenn andi leen defar leen formation garab ba ñu door koo jaay formation bi wax dëgg yàlla moo gën boo ci paree mën a nekk ku ku Pape loolu maa ngi ci alerté nguur gi bari na ñuy faatu ñu bari ñoo xam ne ni dañuy dem hôpital garab mbedd ñu dem hôpital ñu xool leen duñ gis benn feebar li ko war a mooy garab yi ñuy naan mooy leen di rey dañoo war nag képp koo xam ne ni yaa ngi jaay garab ci mbedd yi moo xam muy Touba moo xam muy Dakaaru ak fu mu mën a doon boo demee ci ji bari nañu fi jaay garab ñoo xam ne ni amuñ xam-xam bi dañuy rek sungu fi nga ñëw jaay la nga ko naan te gis nga loolu képp ku def ku ne mën na laa jurul ay jafe loolu nañ nañ ci insisté ko dugal ko ñi nekk jumaa jaak ak fu mën a doon damay cité ñuy jaay garab yi nañuy dem ci ñoom di leen saytu comme ça ni nga xam ne ni service d'hygiène day jékki-jékki dem ci bitig yi xool xool xool ñi nga xam ne yor nañ ay ay ay yu baax mm-hmm. yaa ngi dégg ñu dem saytu leen euh, yi ci baaxul ñu teg leen alamaan dañoo war a dem fépp fu ñuy jaay garab ñu xool leen ndax jàng nañ xam-xam wala jànguñ ko loolu mooy tax euh, li nga xam ne nii moom lañ ci faj mu mën a mu mën antu ci kaat nag suñu xam naa ne émission bi mm-hmm. comme jeex na te bari na ci yoo xam ne ni war nañ ko war nañ ko tourné waat incha allah ci cabinet Nourou Daarayni mm-hmm. fii daal daara xam ne dañ fiy jàngale li nga xam ne ni mooy jëm ci wàllu xel moo jëm ci wàllu xilmul nujoom xilmul xawaatim ak mboolem li jëm ci wàllum asraar dañ koy jàngale fi ay nit ñoo fi nekk ñoo xam ne nii boo ñëwee dañ la koy jàngal benn par benn incha allah bu ci kàttan suñu borom ñi ngi rafetlu émission bu baax di la siyaar yow Cheikh Pape mi nga xam ne ni yow yaay directeur u télé Buzz yi TV di la ñaan ak sëñ Modou Lo ak Sidna ak mboolem ñi ngeen ànd liggéey bi yëpp ak Mama Wali jërëjëf di ziar baax jëwriñ ji muy Serigne Cheikhouna Diop moom moom moom moom sëñ Touba nga xam ne ni moom mooy jëwriñ ni mboolem liggéey bi yëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom mu defal ko kàttan defal ko sutura ba yéene ji mu am ci liggéey bu yëpp mu def ko ni mu ko soobee jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñëpp maasi ngeen xam ni suñu borom sax tabaraka wa taala ci suratu arrahman defe naa alaj pap mm-hmm. waxtaan na fa ba tudd tudd garab mm-hmm. kon garab tamit lu jar a bàyyi xel ndax it maanaam euh, ba ci wolof yi sax buñ naan buñ naan demal faju ji dañ naan la demal wuti garab mm-hmm. ba léegi garab mooy garab gi suñu borom tuddoon rek ça veut dire que waxi suñu moo barkeel dama wuti garab ça veut dire que sajiru la rek wuti garab la rek garab la garab la donc nag garab bu fekkee ni suñu borom moom moo ko tudd rek ça veut dire da koy isaara wan ni ay yu bëree mu nga ca dem leen xooli garab ba xam jan njëriñ la leen mën a amal ñoom ñi nekk di cabinet cabinet nooru daari ni ñoom ñoo demoon gëstu ji loola bi suñu borom tuddee loolu ñu jàng ko ba noppi gëstu ko dañ nax alxuraan lépp lu mu junj rek njariñ la ñu dem xooli ko génn ca njëriñ yoo xamante ne bii te xam naa ne ya des a ëpp donc cabinet bii di nooru daare ni comme ni ko alaaj Pape waxee boo ñëwee du ñëw da ñëw rek directement daal di ma butéel bi ñu jaay ko loo mën a yor boo ñëwee duñu la ko jaay da dem ci kaw ñu xool la ba xam yow ban garab nga war a jël parce am na koo xamante ne bi tànk yu métti la am boo ko fajee am ay ne ñoom ñoom ngay joxe nga xam ne ñi nga ne ñoo bëgg a def si a su boobaa nee naa cabinet Nourou Daara boo fi ñëwee daara la daara daara la ndax ku fi ñëw di nga xam ne daara la liggéey bu si nekk dafa ñu ko yor su fekkee li jëm ci wàllum xel mu sajara wàllum garab yi ak saytu ko ak yooyu boo ñëwee da ngay jaar ci Cheikh Pape Diouf incha allah numéro yi 77 la 414 73 19 wala nga woo Serigne Cheikh Oudar Diop mi nga xam ne mooy directeur bi ci numéro am direct 77 854 17 94 wala 76 017 04 89. incha allah képp koo xam ne nii ñëw nga fi rek dañ la saytu dañ la dimbali euh, bu ko defee chaque émission bu jeexee danañ am lenn loo xam ne dañ koy maye lu jëm ci wàllu xel mu sajara ñi xam ne mënuñoo ñëw barki démb rek dañ may woo di ma jàngat jàmbat tànk yu métti mu bari ci àdduna bi loolu nag euh, partie bu mu gàtt la wax dañ koy maye euh, gratuitement képp koo xam ne da yor tànk yoo xam day métti chaque jour mag moo xam ne mën ta dox mën ta ñëw da ngay dem nga wuti ndéef ndéef ñëpp xam nañ ko waaw waaw waaw da nga ciy wut ndéef bu wow nga wut ñaar wala ñett wal ko ba mu nekk sunguf nga dem wuti cox cox ñëpp xam nañ ko boo demee wuti cox boole koog ndéef li singuf jaxase ko ba mu jaxasoo nga togg ko boo ko toggee ba pare boo ko xoolee day mel ni ruy lay lay nuru ruy lay lay nuru soo paree nga bàyyi ko ba mu sedd ngay def sa guddi nga di ko diw li tàmbale ci tànk yi ci suuf ba ci ba ci li tàmbale ci oom bi ba ci suuf boo ko ci doo ci diw ñetti fan mukk ak lu tànk yi garaaw garaaw te wërut incha allah bu neex yàlla loolu def nañ ko àddee yonent bi. waaw alayhi mbokk yi mu ngi noonu. alaaji Seex Pape Diouf la woon borom gën gi moom à chaque fois boo ñëwee ci cabine bi di nga ko fekk mu toog yaa ngi boo wootee rek bu soob yàlla dana la décroché aussi tamit dana la teg ci aksi ba nga ñëw fekk si li nga xam ne mooy cabinet Nourou Darayni ñu faj sa aajo mbokk yi xam naa kon ba beneen yoon ci beneen jotaay parce que émission bi moom danañ fexe ba à chaque fois muy am ndaxte lii dafa amal njëriñ réew mi alaaji Pape donc nag xam naa ba beneen yoon ci beneen jotaay ak Serigne Pape Diouf borom gën gi ci cabinet Nourou Darayni jërëjëf